ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykati kam mangala yaare ama sen day bëreeg Balla mu dem ba mu dess dugg ci bir estade bi ma am lu ma ko won ma ki bula dané damay rendi sama bop hmm. lolou yep dang koy ñaax waaw parce que dang koy nan ki ni mhm. dula dan mhm. waaw teyeko depuis buntu kërëm ba bir estade ma top ko mhm. yaa ngi lolou yep maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy ñaax. maa koy ñaax waaw ne ko gis nga li ci ginnaaw. Mhm. gis nga tey kii bu la daanee mooy xam nga mooy loolu. booy ñaax tamit soo gisee ñu wax ko loolu mooy tey dafa dafa jóge ci combat yi nga xamante ne tey combat yi mu jóge nii muy la daggee rek euh, tafatin amul kenn ku ci war ci kawam de. Hmm. waaw nag victoire moom noo amee. non voilà victoire dañ mën la la daggee da ko daan. waaw tafatin da koo daan. Mhm. mais champion yi ñuy wax nii waraguñu ci kawam de. Hmm. déedéet. waaw nag mi ngi bëri ndaanaan Balla Gaye 2. loolu kay déggoo ma ne la mooy borom yaa ngi ciy topp di ci waxaat. déggoo ma ne képp ku taxaw ne Balla Gaye du ndaanaan rek foroloo ko. foroloo ko foroloo ko. Hmm. ndaanaan la mais ñun dañuy bëri ku ñu xam. Hmm. waaw Balla Gaye. muy Balla Gaye 2 waaw nañ koo xam. Uh-huh. Hmm. foo leen ci wàccaay bi. pare nañ ci lépp. pare nañ ci lépp di wax Pikine waa yëpp nañu génn taxaw ko. yaa ngi may dégg ka ce taxaw ko jàppale ko. ñun dañoo am ay événement yoo xam ne du booy ñaa kese. dañoo am événement yu bëri. Mhm. waaw suma doom suma xarit muy Pokola. Pokola dafa am combat. dégg nga. Mhm. Ama Balde. Mhm. dafa am tàkkosaan bu mag. moo Gris Bordeaux tey su yàlla defee tàkkosaan bu jege. Sénégal yëpp dañuy jàpp ni Ama Balde rek laa bëgg. waaw ah, noonu laa mel. man noonu laa mel ci Pikine. may wax tamit nañu jóg parce que tey am nañu événement soq tamit am na combat. muy bëreeg suma rakk maar la waaw su ma ñaari rakk nag ñooy bëre. Mhm. Marley ak sook waaw. mais fi ma ko jeexalee tamit am na coow lu amoon Pikine fan yi passé mhm. am na ñu nga xam tamit ñu ngi leen gis ñu ngi génn mhm. am ay kàddu ñuy wax di ko teg ci kaw Pape Sarr loolu loo ci mën a indi ci ay leeral non ñu kàddu si kaw Pape Sarr dañoo teg ci kàddu si kaw deux cent pour cent Pikine bi ñu ne dañu encaissé xaw ma ñaata millions dañoo encaissé xaalis vingt cinq millions loolu man dinaa ci leeral seen vingt cinq millions yooyu ñu encaissé waaw Pape Sarr demul palais. Mhm. Pape Sarr àndul ak politicien. Mhm. Pape Sarr àndul ak mbër politicien jox ko xaalis. Mhm. man du ma pour sol tisatu politicien man Macky Sall benn yoon laa ko gis ñaari yoon. mooy bi mu ñëwee ci kër gii di jaale si suñu maam la baat. ak avant muy nekk président pour pa bi ñëw jàppale ko. dégg nga. Abdou Diouf 93 laa ko gis muy cubaleel suñu dëkk bi mu fa ñëwee moog noo Diatta. mais man duma ma sol ti surtout politicien. Mm. du ma politique. Mm-hmm. benn mbër yabuuma sax ànd ak sa politicien ne ma Pape Sarr ñu ànd. dëgg la kon nañu lijjanti seen vingt cinq millions génne ci Pape Sarr. coow li ngay wax ni mm-hmm. samay nit lañu muy waa kër waa kër afia yooyu man fa toog di naan café mm-hmm. kenn ci tudd Pape Sarr benn nit la moo ci tudd Pape Sarr mu rëccale saaga ma léegi nag bi mu defee saaga boobu damaa jël vidéo bi am na lu ma yoon may ci kuy def video di saaga nit. Mm-hmm. am na lu ma yoon may ma jël vidéo bi dem yóbbu ko fi nga xamante ne tey moom lañ koy jébbal. Mm-hmm. ma jébbal ko parce que tey damaa yor ay rak. Mm-hmm. yaa ngi may dégg gis nga yu leen gën a réew fuuf. yu ko gën a réew moom laay wax. dégg nga ñu ko gën a réew fuuf. mun nañ ko bàyyi ba mu ñëw ñu faj ko te dëkk te du ma du ko doxalee noonu dama dafa dafa dëkk bi moo am yoon. réewu yoon la. jël nañu vidéo saaga la ci. yaa ngi may dégg ca mun naa ko faj de. saaga boobu mun naa ko faj mu damay jël vidéo bi dem yóbbu ko ci yoon am na lu ma yoon wax ci vidéo boobu. ba hmm. Balla Gaye hmm. ndooy daf ne ko këtt geen. waaw defeere ko. Hmm. mais kii daf maa saaga. dafa saaga dafa maa jaar saaga ma mu métti sumay rakk. métti hmm. sumay mbokk. Hmm. dum ko faj nag am naa fu ma koy fajee mooy dëkk bi daa am daa dafa am yoon saaga nga ma ci TikTok. saaga nga ma ci YouTube dama koy capturer. xam naa fi nga dëkk xam naa la damay jël yóbbu ko ci yoon di déglu yoon. yoon def liggéeyam yoon def liggéeyam. Hmm. xam nga ñu yemale ko ci lu la métti ci Pikine génnal nga wax ko. saa nga génne ci Pape saar déggoo ma ne la buntu këru mbër bu ma neex laay jaar. Mhm. na ñu taxaw xool wala ñu tàppe ci YouTube bi xool vidéo boo xam ne Pape Sarr ànd naa ak mbër. Mhm. ñu jox leen xaalis sédd Pape Sarr. Mhm. combat soq bi. komba combat soq bi. ak Franc la ñu dem fële ginnaaw raay. mooy maire bi maireu ginnaaw raay bi. yëkkati benn somme jox ko soq. soq mu ngi may dégg. Ama Sène mu ngi may dégg Ama Balde mu ngi may dégg. Mhm. si ñoom laa la nii amul kenn koo ni mu mus naa ànd ak yow ci politicien yi. Mhm. bokkuma ak politique ma. Mhm. ànduma ak politicien dégg nga. Pikine yàgg naa fi façon événement bu nekk mi nit musuma gis ma sol tisetu Macky Sall. waxuma la ak politicien tisetu Macky Sall te Macky Sall ñëw na fii si biir kër gi di ñaan ndimbal paa bi pour paa bi jàppale ko. Macky Sall ñëw na fii ci kër gi pour. pour di jaale si paa bi. Mhm. man mosuñu maa gis ma ànd ak politicien. Mhm. kon tey képp ku si wax rek yaa ngi may tooñ. mu ngi may tooñ. man nekkuma fi lu dul di taxawal xam la laa xam. Mhm. fan laay dem ci politicien. keebaa Kéba Kanté la. Sénégal yëpp Kéba Kanté lañ ma xamee. tey muy doomu Cheikh Kanté. ak Jamil Nouroula ak Birandou mooy tey képp ku fi feebar. bu bëgg ndimbal. si ñoom laay dem. ñu dimbali ko. dimbali ko jàppale yaa ngi may dégg ak ñu nekk si diaspora bi mais Pape mooy politique. doo ko gis mukk. du ma ànd ak maa ngi koy wax nag mu leer ànduma ak benn politicien. Mm-hmm. man politique ma soluma yére politique soxlawu ma xaalisu politicien. Mm-hmm. xaalis bi ñuy jox mbëri. Mm-hmm. mën nañ ma ci génnee man bokk ma ci de. Ken duma ci tuumal do deg man la do deg nañu xol vidéo motax sumay bëgguna kep kuy wax na nga wax wax ju sol tubai sûr nga wax ñi ngay waxal nga génné ci pap sar mhm. parce que pap sar andul ak andul ak sokku andul mhm. ak Eumeu sen andul ak Boy dugg biir palais man bokuma ci mhm. fekke wuma xawma kañ lañu dem palais wala ban politicien mo lañ jox xaaliss man fekke wuma yeguma fok ñoñu duñ wax nak fa tok sama grand place la ñuy samay rak muy samay xarit muy jowrin ma leen muy ñoom Assane Kebe ma leen di nuyu waale mhm. wax nañu vidéo bi ba mu jeex tudd ñu sama tur mhm. kenn moo ci tudd sama tur mhm. Italie la newoon ñëwaat fii Italie la ne woon ñëwaat fi kon kooku xamul Pape Sarr tey bu ma ko supporté woon sama scooter dina dégg deux cent personnes yoo xam ne ku si nekk sama tur ngay jaar mais moom kenn tudd turam moo tax jarul ma koy tontu non non jarul ma koy tontu jarul ma koy wax dara parce que tey foofu laay dem lépp lu fa mu sa xew mhm. ah ñëw naa duggal ci sama loxo mhm. jowrin mu may dégg lépp lu si mun ta xew dina ma woo ne ma Pape Sarr kat ma jël ko yàpp ko sama scooter ñu ànd képp muy cant mhm. wala màggal lépp lu ma ci mën même mu nekkee dërëm wala ñaar dërëm lu ma ci mën dinaa ko fa def dégg nga keroog bi may taxaw di di taxawal combat muy rent DKR damaa bàyyi mbëru pikin yëpp dem jubali ci Malick Ndiaye dem jox ko avance ah kon ñooñu du ñu samay noon mhm. boole koog Bou Siteu waaw du dëgg mhm. te tey gis nga coow lu ma si topp dégg nga bu ñuy analyser nañ ma si génnee parce que man ay loxo yu set wicc laa yor mhm. kenn du ma jiiñ ci dara kenn du ma jiiñ ci Pikine dara amul kenn koo xamante ne tey boo boo nekkul naa fekk rek ah Pape Sarr da ko war a tabaxal monument fi mu dëkk wala sa koñ wala nga tuddee ko arrêt wala nga jël sa doom tuddee ko Pape Sarr parce que da ngay fexe def ni Pape Sarr def Pikine saa nga naan da koy jéema loolu loolu loolu découragé wu ma loolu noppiloowu ma am na solo Pape uh-huh. maa ngi nuyu nag bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. may nuyu nag jëwrin ñoom laas